de fii mooy amul tefes. boo boo nag kër Sëñ Saam Basiru waaw pont bi dafay yàqu waaw waaw. monsieur le président ñu lay ñaanal baax na maa ngi nekk bokkul parti ñu lay ñaanal yàlla defal la jàmm. président li nga am ndax amul laa xañ jàmm dina am jàmm dem soow Thank you.

maa yaakaar ne comme Abdou Souleymane mais fii c'est mal lotissé ñun bi mu ñëwee ba léegi ci lañ am problème ndox. ñoom bi ñu dëkkee ba léegi. ñu ngi am problème ndox président kii mooy. c'est magistrat mais kii mooy groupe nord de VN. président bi mooy bande de classe. waaw man man man maa ngi liggéey waaw mu mu ñëw foofu mu ñëw foofu. <laughs> mais président bi nga président bi président. président bi jaajëf am na assainissement. mais problème mooy curage bi ñu ko waroon def. c'est lui qui gère l'assainissement au niveau de la commune. moom moom ñoo leen bokk di nekk mais yàlla def na ba 2008 bokkuñu mais xam nga yàlla koy dogal rek mais amuñu benn animosité ak yéen. man dañoo sax part bi ma la bi may réclamé au moins foofu part mais. ah mais jëlal sama contact yaa woon man maa maa ana sa téléphone. sa téléphone. trois fere laa jaar ba jàngee ak CPPR. voilà voilà. ah. déedéet. waaye maa moom ñu ngi taxaw. muy daa wër benn oto la yor nii rek benn oto la yor nii rek ànd ak benn merci beaucoup. non daa sori Diouf daa sori. jamal nuyu ko. daa sori de. waaw. c'est bon. mais président. président dégg nga dégg nga mu la miir lii da ko war a jëf de temps président dafa bëgg génn avancé. ni nga ma dem nii mu dem.